Bonsoir, c'est l'internet Thiès Info. On est en direct euh, à l'estade euh, Lac de Thiès. Euh, donc on a que di suivre match bi ci diggante Génération Foot ak Zamalek zéro bi partout voilà donc défenseur bi moo récupéré bal bi noonu yéen en direct stade Lac Dior de Thiès Génération Foot face à Zamalek attention le capitaine de l'ASC numéro 14 Génération Foot le capitaine sànni na bal bi ci góol bi Zamalek attention une récupération de la génération foot attention hors-jeu attention Zamalek attention attention but voilà le premier but le foot Voilà le premier but, le premier but Génération Foot. Le Génération Foot. Attention, Génération Foot. Récupération centre. Attention, récupéré par Génération Foot qui vient toujours la balle. Une centre. Voilà, gardien bi jàpp na ko. gardien Voilà, Jamalé qui tient la balle. Attention, le numéro 13. Voilà, sorti de tous en faveur de Zamalek. Et vous êtes donc en direct à l'estade de la Dior de Thiès. On vit partout. Attention, attention. Voilà, une récupération de génération foot qui tient toujours la balle. un but à zéro attention voilà Cornell pour Samalek. Attention, le centre pour Zamalek. Une balle récupérée par Génération foot qui dégage. Attention. Voilà, directement. Coffrant en faveur de l'équipe Génération Foot. Une fente. Attention la tête. Cornel. attention ah défenseur bi récupéré na balle bi On est donc à la deuxième période. Attention, attention, centre. Dégagement, une récupération de Génération Foot. Attention. Arbitre, l'arbitre ne dit rien. Arbitre nee na dara amul. Dara amul. Dara amul. Un but à zéro. Attention. La balle récupérée par l'équipe Génération Foot. attention attention voilà arbitre tiré na attention voilà attention au centre directement attention attention ah là là là voilà le gardien jamono ji euh, ñu ngi teg métit bu métti lii di génération foot attention attention bon en direct à la stade Lat attention attention le deuxième le deuxième Génération Foot Le deuxième but de Génération Foot. Le deuxième but de Génération Foot. Mame Limamou. Mame Limamou Laye moo dugalaat. moo dugalaat première but bi. ah waaw waaw ah mu ngay dugal. waaw waaw mu ngay dugal. waaw. deux buts à zéro en faveur. de Génération Foot en direct à la stade Lat Dior de Thiès. moo fi jaar Thiès moo fi jaar. kon suñu dafa lekk gis ko mu dugg. mooy na léegi mu ngi taxaw di wax ak ay joueur am. waaw mel daa jóg. moo tax bii benn reporter ñëwee si man ni ma El moo gaare noonu ma ni ko bekkuma. attention. daa am na Khalilou Fadiga am na Khalilou Fadiga. seetaan si ak seen doom yi ñëw na ñooy nii toog. Ah, c'est bien. Coup franc en faveur de l'équipe Zamalek. Euh, Zamalek dafa mel ni am na kuy échauffé wu xam naa changement sax la ñuy waajal noonu. changement la ñuy waajal. moom la ñuy waajal. soo ko subaa koy wax ak moom. boo duggee boo duggee fexeel ma nu góor bi gaañuwaatee wala wala wala xëy na. tudd ko ab dërëm sax di ko sànni ko ci kaay. waaw ah, waaw waaw. gis nga ku bi de. làmb na poos bi. am na lu xew lu xew lu xew. lu xew. dugal na. bii bi nu mu demee. Euh, bii nuroo na lool ak Marcelo. damay Marcelo de Marcelo ku bëri la arbitre waxul dara attention attention mu ngay dem mu ngay dem naar yaa ngay dem naar yaa attention jërëjëf waaw waaw génération foot ko jógal nee na ko jógal jógal jógal la ko Daw Ouma Daw la ko wax arbitre bi nee ko Ouma Daw ndaamal génération foot ndaamal génération foot mu ngay dem mu ngay dem mu ngay dem ndaamal génération foot. xale xale yaa ngi am njaay indi jóg. waaw waaw. xale centré na centré na attention. waaw baaxul. récupération de balle toujours génération foot. xool ñu dañoo toog ci xottu leen ndax même pas même pas benn faute bu ndaw rek gis nga li ma lay wax gis nga li ma lay wax voilà gis nga. lii lañuy bañ lii la ñuy bañ même benn pot bu ndaw rek mën nañoo def mën nañoo def erreur. mën nañoo def erreur mën jël te suñ jëlee du baax heureusement match bi jeex na. voilà fin du Génération Foot qui mène par deux à un.